ay construction yi ñu arrêté bërki dem boo njaay ci corniche bi foofu c'est sur que yave avait beaucoup d'ouvriers yu fa doon xëy di fa tuur seen ñax di fa jëriñu ce sur est sûr depuis lundi ñooñu liggéeyuñu ñi nga xam ne ñoo doon nekk autour di def un petit commerce parce que foo gis chantier dinga fa gis kuy jaay restauration loolu liggéey la te payoor la ci ñi nga xam ne dañ koy def mais aussi ñi nga xamante ne ñooy jaay ciment faire wala bâtiment parce que ñëpp xam nañu Sénégal depuis un certain temps bâtiment moo fi dox moo fi tane. ci mhm. liggéey commerce doxul communication bi ñu nekk muy presse moom moom ni mu nagamee sax loolu doonatul lu ñuy waxtaan. Mhm. parce que léegi groupe de presse yu mag yi nga gis yëpp yu yëngu ci privé. Mhm. dañoo am jafe-jafe te du dara lu mooy euh, politique bi ñuy mënee contre la presse parce que contre la presse laa ko mën a jàppee. dafa mel ni pouvoir yi succédé wu ci suñu réew bi dañuy ñëw rien que pour affaiblir la presse privée surtout. parce dañuy bëgg. ñu nekk peut dans des difficultés ngir ñu mën leen gën a mën a euh, gën leen sonal xoj leen te mën na jur ëllëg ñu mën leen a maîtriser di leen contrôler mhm. boo xoolee presse écrite bi bëri na luñ ci def lu mel noonu ñi doon résister mooy c'est quelque groupe de presse grands groupe de presse comme Sen TV des médias Euh, GFM. TFM GFM et Walfadjri mais gis nga daj nañ lu mburu dul daj ci taal parce que ñoom bëgg nañu garder seen autonomie ak seen indépendance mais coûté na leen lu bari parce que laissé nañ ci beaucoup de plumes surtout les patron Mm. et pourtant néanmoins ñu ngi résister di couvrir les charges di fay les salaires alors que ñëpp xam nañ nga presse juratul dara. ku ci hmm. investir jom rek moo la ci bàyyi ak fulla ak bëgg-bëgg mais doonatul looy gagné wala nga ciy am alal bi nga soxla. parce que hmm. bu dee loolu nga bëgg du foofu nga koy amijee nekk na jafe-jafe hmm. pour que ñu ko guerre su presse privée bi. Euh, comme on a un nouveau régime mhm. on a la rupture mhm. nañu changer nag les donnes mhm. jëm ci publicité bi nga xam ne moom la presse privée bi yàgg kaas ñu jox ko ci li mu moom ak li mu yelloo dindi publicité bi ñuy jël di ko verser à outrance ci service public bi nga xam ne état da koy jox xaalis di ko appuyer non seulement mais aussi di jël publicité di ko fa verser na suñu entreprise yi ak suñu directeur nationaux yi fexe ba jël presse privée bi jiital leen ci convention yi parce que loolu rek lañ mën a dundee et puis une presse libre dafa baax ci démocratie dafa baax ci réew. parce que rôle d' alerte bi nga xamante ne moom lañ bëgg créer comme nouvelle fonction am na fi ba pare à travers la presse privée. Hmm. bu ñu leen doolelee rek presse bi mën na liggéey liggéey boobu mais ñu néewal presse kàttanal ñeneen ñoo xamante ne peut-être éthique. ak déontologie wala filtre bi presque mën a am ñoom mun nañ ko bañ a am. ci yaa am na ay points yoo xamante ne peut-être syndicat bi daal dina ko soulever euh, mm-hmm. devant le chef de l'État foofu ca pale euh, parce que euh, mën nañ wax ne ne pratiquement am na ñoo xamante ne ne jotuñu demande de couverture pour pouvoir couvrir li nga xamante ne moom moo di événement bi foofu ca pale et j'ai mm-hmm. vu quelques médias ñoo nekk ci ci ci ca palais actuellement ci li nga xamante ne moom moo jëm ci remise cahier doléances yi ñu gis Bamba Kassé mhm. mi nga xamante ne yëkkati na ay kàddu également ñëwaat par exemple ci lii nga xamante ne moom nga soulever léegi nii mhm. xam nga loolu dafa bokk si li ñu doon kaas mhm. jamono yi passé yàggul dara mooy euh, ni ñuy jëlee par parloo dugal ko ci presse bi ak traitement ci presse bi palais bi dañ la woon accès interdit la woon ci presse privée bi RTS rek fa amoon wàll du loolu bokkoon na si li ñuy xeex tey jii bu ñu ñëwee kon ñuy woote ñii ñeneen ñi ñu leen di bàyyi kon même méthode même procédé moom lañ fi fekk. kon mhm. loolu la ñuy continuer di dundu c'est à déplorer parce que c'est la deuxième fois parce que Ndeye Fatou mm-hmm. doguma la c'est la mm-hmm. deuxième fois euh, même euh, bi fi euh, ki nga xamante ne moo di Charles Michel ñëwee mm-hmm. également c'était une presse bien ciblée pour ñu dem couvrir événement boobu et tey aussi tam c'est ce qu'on a encore vu ci ci ci ci ci ñi nga xamante ne peut-être mën naa wax ne ñoo yor communication bu palais parce que d'habitude ñoom ñoo daan joxe les invitations pour demander xamante ne ñooy couvrir loolu parce que waruñoo xañ les gens li nga xamante ne moo jëm ci wàllu donner l'information ci askan wi parce que askan wi tey am na ñu baree bare ñoo xamante ne bëggoon nañoo xam euh, à travers peut-être Sen TV parce que fi laa nekk li nga xamante ne moo jukkee ci waxtaan woowu nga xamante ne le chef de l'État recevoir na ci euh, ñi leen di centrale syndicale yi waaw mooy li ma la wax rek xam nga dañ doon accuse dañ doon déplorer le fait que suñuy chef d'État d'abord mm-hmm. balaa ñoo wax wax ak étranger du duñu wax ak presse nationale. Mhm. ñu gis derrière dernière interview bi nga xam ne président Macky def na ko ciblage la woon. Mhm. am na ñu mu jëloon comme journaliste ñu di ko laaj muy tontu. Mhm. mu bàyyi ñu bëri ñu koy déplorer. oui et je pensais que après le 24 mars. lu bëri li ñu doon kaas loolu dootuñ ko dundati mhm. parce que yaakaar rek la ñu am mhm. pour changement am donc bu ñu demee ba am yaakaar changer mbir je pense que li ñu doon déplorer dootul doonati lu ñuy lu ñuy waxtaanee mhm. loolu day doon ay question yu wala ay problèmes yu ñuy résoudre mais bu fekkee ne dañuy recontinuer wala dañuy continuer di vivre les mêmes situations ah pourquoi changer donc parce que day mel dañuy dindi ay nit bàyyi fi même méthode. même méthode donc on change les têtes et les personnes mais on change pas les procédés et les procédures. Mm-hmm. est-ce que loolu mooy changement. Mm-hmm. ce n'est pas un changement. Mm-hmm. donc nañu jël presse bi yaatal. parce que presse bi ñëpp ñoo yem d'égale dignité. ñii bu ñuy wax li ñu xalaat même bu fekkee ne méngoowul ak sa bëgg-bëgg ak li nga bëgg a dégg. presse lañu. c'est pas parce que ñii ñoo lay wax li nga bëgg a dégg rek que ñooñu nga mën a liggéeyal et puis loolu baaxul. ça a ñu ko mës a def ñëpp. échoué nañ parce que peuple bi toujours fi ñuy déggee équilibre foofu la ñuy dem du ñu dem mukk fi nga xamante ne lodation moo fa am ragal la sa ginnaaw taggal la say maam mhm. bu yàggee day boy ci noppi yi mhm. nit ñi dañuy bëgg d'autres son de cloche et loolu ci équilibre lañ ko mën a amee ak ci diversité mhm. donc yooyu moom ñi ko fi def yëpp échoué nañ ci côté communication ici on reprend les mêmes erreurs les mêmes causes reproduiront les mêmes effets léegi nag en ce premier mai ñun li ñuy xaar tant que travailleur en 2012 amoon nañ une nouvelle vraiment bu suscité woon beaucoup d'engouement et de courage dans le travail mooy la baisse de l'impôt sur les salaires mmh. le président Macky defoon na ko de huit pour cent mm-hmm. on attend quinze pour cent avec l'actuel régime parce que mm-hmm. ci diggante bi coût de la vie dafa doubler tripler ba quadrupler mm-hmm. pourquoi pas quinze si on peut pas avoir seize pour cent loolu tous les travailleurs tey en ce premier mai bu ñu ko déggoon yaakaar naa ci kanam ñëpp ay jubilé. Mhm. parce que dina feeñ ci poos yi. Mhm. feeñ aussi ci am-am bi. Mhm. donc premier mai bi ah j'aurais bien aimé que ñun ñu dégg baisse impôt sur les revenus parce que loolu moom dina tax travailleurs yu bëri gën a am benn cawarte bi ndax dina feeñ ci poos yi li ma wax feeñ ci kër yi feeñ ci li nga xam te ne mooy dund bi. lu jëm leneen aussi mooy wàll sous-traitance bi. moom la ñu nemmeeku ci secteur yëpp foo dem léegi. sous-traitance moo am te sous boobu moo gën a indi précarité dans l'emploi yooyu noonu yëpp doon na ay jafe-jafe dans le secteur de la santé tey yaa ngi liggéey comme journaliste ñoom ñu ngi liggéey parce que hôpital du tëj. Mhm. day fonctionner toujours. Oui. mais hôpital ñëpp gis nañ jafe-jafe yi fa am ndax léegi boo demee même di dit j'ai euh, ah, écouté Cheikh Omar mu ne hôpital Thiaroye ticket 5000 la. waaw mais caaro yi ñan ñoo fa dëkk. li gën a graaw li wër hôpital boobu ci hôpital boobu euh, li gën a graaw. Hmm. Euh, certificat médical dañ la koy jaay à dix mille francs. soo nga loolu. certificat médical dañ la hmm. koy jaay boo ko bëggee boo bëggee ñëw pour ñëw nga faju nga bëgg a dem wane ne yow da nga feebaroon pour nga am ko dañ la koy jaay. looloo gën a graaw loo xamante ne ne yow yaa ko moom. quelle conscience conscience professionnelle loolu kan moo ko mën a ñeme ci ku waat parce que bul fàtte mm. ne médecin yi dañuy waat mm-hmm. dañoo am serment ñooñu nag bu ñu mënee di def yooyu ah loolu moom ñoom la engagé dana ñoom ñoo waat mm. ku ci violé sa serment aussi yow rek la mais juste pour dire caaro yi man mënuma comprendre billet 5000 parce que caaro yi ku dem foofu boo amoon sax drone bu ko tiim di nga xam ne fii du quartier boo xam ne ay nit yu aisé ñoo fi dalal jàmm ah, également c'est à 5000 francs la c'est à 5000 francs également la consultation à Dalal Jàmm indicatif pour dire <laughs> uh-huh. secteur de la santé war nañ ko xoolaat mm-hmm. ngir jàppale askan wi mm-hmm. ça c'est important merci beaucoup Ndeye Fatou euh, Kader par rapport ak euh, feetu première mais bi euh, lan nga ci jàng tey jii d'autant plus que ne gis nañ ñu baree bari ñu ngi sàkku nekkin bi gën a mën a ñoŋ ci seen bërëbu liggéeykaay yi am na ñoo xamante ne dañ daan toog di waxtaan tey autour d'une table mais tey dañoo préféré wàcc lu ci mel ni société bii di COSEC dañoo wàcc